xeex nit xanaa mu ne yàgg nañ ci xeex bi depuis 23 heures ba 3 heures du ne rek day moom xanaa mu ne ko man ñu man ñu ngam te naa laa dégg mu ne man loolu moom mu ko nangu xanaa di di jéem a défendre ñu doo ko yàq kanam après ñu door ñu woo sapeur pompier ak yi gendarmerie bi ñu di sama wax parce que xaalis bu góor heure bi rëcc na mais xaalis bu góor mu rëccee sama ay fan 15 yooyu sama benn cousin moo ko ñoo jàpp bu ñu RDS carte boobu mooy troisième fois bu ñu ko def ci sama côté yaay sama yaay quatre-vingt-dix ans yooyu la am sama yaay ku mag la. quatre-vingt-dix ans la am. waaw xale bu góor bu ñaata la. parce que loolu yëpp sama ginnaaw la xale bu góor man xam naa lu ma def expliqué xam naa ay vingt-huit yooyu wala trente ans yooyu la parce que man tëgguma ko ba parce que bu ma ñëwee ñu kaa jàpp man tourma mu ngi doon damori pour ma demoon lection autorisation pour ñu ma bàyyi ma mën a gis xale bu góor boobu léegi bu ñu demee ñu ne loolu kenn du ko def man sama yaay ñoo fi nekk sama yaay dina yaramam dañu nekk xale bu góor xam ne kan la lan moo agressé sama yaay lan moo tax mu ñëw di agressé sama yaay voilà mu dooy waar euh, xale bu jigéen bi nee na bi nga xamee ni ñëw na euh, ñu ni ko diw moo doon violé sa yaay li mu njëkk a def moom mooy dem police euh, gendarmerie la dem mais joxuñu ko autorisation pour mu gis ki nga xam ne moom mooy xale bu góor bi laaj naa ko nag lu tax nga bëggoon a dem pour gis xale bu xale bu góor bi moom damaa bëgg xamoon ki bëggoon a violé ki nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy sama yaay mais du bulee dan parce que am na histoire yu bari yoo xam ni ay xale yu ndaw dañoo sàkku ay mag yoo xam ni mm-hmm. mag ñi liñ leen magee ëpp na Euh, euh, fanweeri at. ñoom ak seen yaay euh, ñaareel bi mooy dafa bëri ay mag yoo xam ni mama dañ leen a violé mais duñ ko nettali. Mm-hmm. ndax njaboot maanaam dañuy xëy fajar di liggéeyi ay gone yu ndaw kar leen nangu la ñuy yor tëddee leen mais buñ ñibbisee ci kër gi duñ ko nettali. un mooy njaboot ñaareel ba mooy kersa beneen bi moom mooy dañuy bañ way wi way way wi way wi sax ginnaaw def nañ leen ko ci àll ba rek bu ñëwee. dañuy daal di jàpp seen ñaamur mu doon loo xam tamit ni ni xale ni xale di dundee viol euh, mu mu mu topp ko. Euh, merci ba ci ba ci ba ci ba àddunaam surtout mag nag nga xam ni dem nga ba euh, caatal. dem nga ba nga xam ni jaamu yàlla rek moom moo la des. dem nga ba ni dootuma ko seq ak sama jëkkër sax. ndax ay mag lañu. xale bu ndaw boo xam ni yaa ko mën a jur. Mm-hmm. teg la paaka nangu sa alal mm-hmm. jël sa paan këpp la ko. tëddee la doo dellu sa kër ni dañ ma doon violé ndax am nga dem nga dem nga dem ba am ay ba am ay sët ñaareel mooy mag bu ñu nee ko dañ koy dañ koo violé koñ ba yëpp ko xool euh, euh, loolu nga koy loolu nga koy gisee mm-hmm. niñ ko mënee fàtte ci xale boo xam ne dañ koo violé mënuñu koo fàtte ci mag moo xam ne dañ koo violé boo amul fulla sax boo moytul nga doon adresse mooy maire bi ñu violé woon barki démb koñu maire bi ñu violé woon koñ bi nangama moo tax maire yu bari wallaay ah adresse ngay doon Euh, euh, euh, bëri na c'est vrai bëri na bëri na bëri na bëri na mag yoo xam ne def nañ leen ko wallaay seen waa kër yëguñu ni yëguñu ni yëguñu ni yëguñu yëguñu yëguñu ni def nañ ko c'est-à-dire que mënoon soo cité woon dañuy wax ni fu fal dul fu fas dul daw am xel a fay daw mm-hmm. tey am na boo xam ne boo doon koñ nangam am ko ni maa sama yaay la boo waxoon ni bi muy xëy da doon jaay jën ñu ne est que maire bi doon jaay jën mm-hmm. c'est-à-dire moo tax doo mën a cité yu mel ni ki nii parce que day sensible mais xale yi nañu moytu yëfi mag mm-hmm. koy def insha allahu kaso ga jëm yéen euh, en tant que porteur de voix lan nga mën a wax ci kaw euh, viol yi bon